asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullah man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des euh, dañoo bëgg na waxtaane jëmee ko ci procès Ousmane Sonko bi procès bi dama ne jotul ak dara dara mambay mambay jotul ak dara procès bii procès bii c'est l'État du Sénégal le gouvernement du Sénégal particulièrement Macky Sall Benno Bokk Yaakaar ak APR ñoo am problème ak usmaan Sonko Sénégal nekk leen ay nit nekk leen ay nit tubaab bi jaar nañ suñu kaw jàll ceddo jaar suñu kaw jàll sëriñ si tey ñooy bajantu ci suñu kaw ñur réew moo xam ne boobu ba dëgg ni mënuñoo ne ci jàmm Sénégal yi jóg leen surtout la jeunesse ngeen am jàmm bu ngeen jógul régler problème bii du Ousmane Sonko koy régler Ousmane Sonko woo ko mu wuy ji képp la man ñu jàpp tëj ci kaso bi mu tëdd dama ne yéen seen bopp yéen a war a mën a jóg régler ko Macky Sall bu mu leen fontoo ay doomam a ngi ci jàmm ay bokkam a ngi ci jàmm ay xaritam ngi ci jàmm ñii ànd moom kenn du ci dem kaso bu ñu rayoon nit walla ñu saaga ndey nit ak luñ mën a def duñ dem kaso kaso bi fees na dell ak sunuy doom muy taafanto Ousmane Sonko di ko fontoo ngeen toog di ko seetaan kooku tegu leen ko fenn teguñu ko fenn Ousmane Sonko ñaata plainte la fi déposé kenn musu koo woo kenn musu koo déglu intéressé wu leen tey problème mu troisième mandat bi Macky Sall bëgg a doxal ca kaw Sénégal muy illégal la monde ak opinion internationale kenn d'accordu ci yéen ngeen di ay jeunes sénégalais ñàkk fayda ñàkk xorom ah topp màggati politiciens yi ay Idrissa Seck ak ñu tekkiwul dara topp sagari màggat yi ay Moustapha Niass topp ñi nga xam ne tekkiwuñ dara dara dara ah pour lan yéen a ñàkk bopp adduna bépp leen jéppi seen université baa ngi nii dara mu am dara dama ne caabi oto bu réer mu leen koo defar waaw université ab sondeel ab sondeel mënagu leen ko cancer baa ngi rey nit ci réew mi amuñu ci ay pexe dama ne Sénégal Sénégal dakaar mooy dëkk bi gën a cher ci Afrique Macky Sall nekk fi di saw ci seen kaw Marème Faye Sall taxaw di gaanuwaay ci seen kaw yéen xale yéen a yàcc mel na am njafar yéen a ñàkk bopp yéen a ñàkk fula maa mbay ñaa moo baax ci yéen maa mbay leen gën Mame Mbaye leen gën vous la jeune sénégalaise Mame Mbaye ëpp fulla moo leen ëpp fayda moo leen ëpp fit mooy ki nga xam ne moo taxaw ne damay freiné Ousmane Sonko ngeen ne yàcc bilaay yéen a ñàkk jom yéen ñàkk jom toute la jeune sénégalaise di waaw patriote la duma patriote yor soo la may def tararar tararar Macky taxaw di pop ci seen kaw ngeen di ko seetaan yéen a ñàkk jom Ousmane Sonko defu ko dara maa mbay bi man am naa kees koo xam ne am na juróomi at juróomi at te kenn jubluwu ci kenn jubluwu ci am na ñoo xam ne ñi nga tëdd mandat dépôt taxaw di delloo ko xaar boobaa léegi mën a juróomi at kenn faalewu leen ah Macky Sall bërki démb bërki démb képp ah te bi maam bi mu tuddee mamba yi gars yi wëlbati ko ci keesu Adji Sarr ah, topp ko topp ko topp ko mel ni ko ay dëmm yu topp nit dama di yéen waa benn bokk yaakaar yéen waa APR procès bi yéen ko moom mambay dara la ci amut mambay ab sarax la sarax ab sarax la te mambay daa xamal leen du gudd fan lii ma la ak ruude rayuma rayanuma waaw def lépp waaye bët du yenu waaye xam na lu bopp attan mambay ab sarax la sarax kii ay bokkam bu jógul ci moom billaahi wallahi mambay mambay du màggat billaahi wallaahi du màggat wala màgg ab dof lay doon kii ci kaso bi lay dee kii dana dem ci kaso yi ñu danañ ko jabaro ba mu yàqu yow maa mbay la yàqu satan laa sarxe Marème Faye Sall moo la sar daa weccee aw nag aw nag lañ ko weccee tëmbal la yow doo nit sa baay jullit la waaye waroon naa wax ak yow billaahi billaahi wallaahi aw nag lañ la yow ab sarax nga maa mbay dama ne ab sarax nga te lii ma wax mooy li am boo duggee ci kaso bi dootu ko génn te ci ngay faatoo yow ci prison ngay faato boo moyul yaa ñàkk bopp ñàkki bokk waaye nag ñaare nii la doomi sagari biir lii nii la ñuy mel doo nitu dara sa baay nag dama ko kerus ku baax ku jul ku yaaram ma xam ko xam partem xam li muy def yow nga sàggan maram fay wecc ko ak aw nag yaa bon tekki woo dara waaw te juge yi di la faral billahi wallahi képp ko laal ci keesu Ousmane Sonko Ousmane Sonko bii man naa giñ ci yàlla ne boo dee da nga dem sawara muum ma sawara muum ma àjjana waaye ki waaxu jëm ci da koy gis dama ne moomu ma Louga moomu ma Ndar waaye ki daawlu oto di dugg Louga ak di dugg Ndar danga ah, da nga koy jàkkaarloog moom yéen ñëpp yoonu sawar ngeen am te billahi wallahi tooñ ngeen Ousmane Sonko tooñ boo xam ne Ousmane mën leen koo jéggal waxuma sax tooñ Ousmane mais senegal ngeen tooñ procès bii nag waa Benno Bokk Yaakaar la ak waa APR ñoom procès le 17 avril Mame Mbaye amu ci classe bokku ci bokku ci yoonam nekku ci liñ bëgg rek mooy Ousmane du bokk moom la àdduna bépp xaar véridique boobu la ñëpp xaar yéen ñàkk bopp du ngeen nit dara senegal gépp lay wax ah kilifa yi diine yi naafiq yi ay naafiq dëgg ngeen naafiq mënut a passé sa mor moom jullit ah ñu jiñ ko viol te viol kenn nga xam làq ngir sa sa gàmmo wala sa màggal neex di lay noo bon noo bon amul kenn ku ci ñëpp ko yëg waaw seeni maam nag bi tubaab bi taxawee di laaj indépendance de Gaulle ñëw Sénégal di laaj indépendance de dafa ne ñii fi nekk doon ay tubaab yu njuul ma administration coloniale man maa leen fi teg te 1896 damaa toog waxtaan ak sëriñ si waxtaan ak ceddo yi mu jël Sénégal may ma seeni maama maye Sénégal seeni maam moo maye Sénégal waaw ngeen di ci añ di ci reer di ci dund boobu nag gis ngeen ko ah bu nee sëriñ nag bu waxuma seex yi seex yi duñ dara bokkuñu ci ah ñi nga xam ne dañoo sorit bokkuñu ci ñi nga xam ne ñooy lekk alali réew mi di fas yéene koo dundee moo ñi nga xam ne ñoo doon xalifa gi ñooñu rek ñooy lekk ak seeni bokk ak seeni i xarit ak seen i jeex na ak seen i góor jigéen sax ak seeni góor ndax góor jigéen yi soxna yi xola xola première dame xalifa yi première dame yi xalifa yu bari première dame yu xalifa yu baree baree bari ay góor jigéen yi leen létt ay góor jigéen leen di maase waaw réew mi xam nañ tëddee bu leen nu fontoo bu leen nu bu ngeen toogee di seetaan Macky Sall mu taxaw di saw ci taalibe saw saw amul kenn ci yéen ku ñemee jóg jàpp ci gen bi wala nga yàb lu ñu téye ci geen bi te kenn du wax fu ngeen ko teg fu ngeen ko teg fan ngeen ko teg Macky Sall war taxaw gaanawaay ci suñ kaw te bu nee sëriñ si dama leen koy wax quatre-vingt-quinze pour cent des marabu lekkuñu naanuñu añuñu réeruñu ay nit lañ yoo xam ne dañoo coloniser seeni mentalité ba ñi mu wax ku ci ubbi sa gémmiñ ñu damay taal sa kër kenn ñi mu cee wax wala damay toj sa kër ku ci ubbi sa gémmiñ ubbi sa gémmiñ wax rek ñu ne daa murtat wala daa daa réew wala daa xamadi te nit ñi sonn coono boo xam ne coono bu tar la le 17 bii dama ne projet APR la APR ñu yóbbu Ousmane Sonko tribunal pour bañ mu bokk ci troisième mandat pour mu bokk pour mu pour pour mu forcer ko pour mu forcer ko mu bokk Ousmane Sonko bañ a bokk waaye yéen waa bu ngeen nangoo doon ay jaam ay jaam lañ kay ay jaam la xoola ay jaam lañ la Cheikh Anta yow naan tout le monde est victime de l' esclavage ñun esclavage ci la ñu ne waaw sénégalais si booru toppe ñaan sarxu bañ a fay bor maanaam lépp loo xalaat ci lu litige jëm ci dégam euh, délinquance ñu ngi ca biir waaye amu leen fulla Macky Sall di fonto Ousmane Sonko ànd kook APR rek benn bokk yaakaar ngeen ne yàcc mel na ay dof jékkoon ngeen fi Macky Sall sëriñ si taxaw fexe ba Macky rëcc tey Macky ngi yor nam ma paaka nar rendi Ousmane Sonko ngeen ne yàcc di xoole man damaa génn ci yéen jaratu leen ñaari dërëm ñaari dërëm te attention de ni ko Macky wàcce ci oto bi di ko yóbbu ak di ko yóbbu këram ak a fontoo dama ne le 17 bi bu ngeen defee Macky ca kaso ba la ko yóbbu parce que ñun amuñu jom amuñu jom amuñu jom jóg leen ngeen taxaw ci buntu këram ne ko doo génn jóg leen ngeen attaqué Ousmane euh, gouvernement jóg leen ngeen lijjanti seen bopp yéen a ñàkk bopp jéggi leen sëriñ si jéggi leen jéggi leen sëriñ si dem lijjanti seen bopp ñii ñu yàlla billahi wallahi jaamuñu yàlla te kilifa yi diine yu baree bari ak billahi wallahi kas sawar leen jëm parce que baaxunu baaxunu sama rum jullit ñu di ko wor di ko domp di ko kaata di ko soxore nga taxaw ne tek sa gémmiñ ngeen lànk bañ ko ubbi parce que yéen fi di ay kilifa ngeen ah moo tax tudd leen bu nga nanguloon doon kilifa kenn du leen tudd bi fi dogal dikkee yéen a taxaw ci tribune bi maaye Sénégal kaset yaa ngi fi vidéo yaa ngi te wax ju bëri dana siiwan ah. tubaab bi képp koo xam ne seqoon na ko yow ba ca esclavage ba mi ngi ak photo yi mi ngi enregistrement yi ñi fi bàkkoo seen maam yëpp enregistrement vocal vocal dana génn léegi ci internet bi Macron lépp lay génne Macron lépp dana ko génne waxuma la Macron rek waaye ñun ñi rek ñun ñi am na xutba yoo man xutba yoo xam ne buñ ko génnee te daañu ko génn def ko ci internet bi yëpp gis ko xutba yoo xam ne bu ngeen ko déggee da ngeen daw làqu ji waaw pina la parat yàlla na fi yàgg pina la yàlla na nga gudd fan di ñaanal kolon bi nga xam di nga am taxaw ci buntu jo dama ne bu jëkk bu jëkk billaahi kenn ñemewu la xutba it te xutba bi joxoo ko bi ba pare sans excès amul kenn ku mu ñemee xutba Sénégal laa la ko de bi tubaab bi euh, déglu ko ba pare tubaab bi musta nangu musta nangu lu xutba te xamuñu lu mu doon tubaab bi demoo dama Ndakaaru kenn dafa julli tisbaar waaw kan waxante dëgg billaay wasifa wasifa dañ ko interdit woon sëñ Babacar tax ñu delluy wasifa waat sëñ Babacar tax ñuy wasifa waat waaye tubaab du ko interdit woon ah kan boo waxante dëgg li fi nekk nañ ko wax Senghor li ko indi Sénégal xam nañ ko Cheikh Anta Diop nee na bu fekkoonte ne neexoon na ma Sénégal duñ xam Senghor man la waa Kédor saay woo présenté moo dogal dogal ne ma damaa bëgg nga dem Sénégal xaar ma maa ngi dikk pour problème indépendance damaa bëggoon nag ngeen jàppante ak France ñooy benn coopération jumelage ànd Cheikh Anta ko loolu mënuma ko mënuma ko de ndax man ak docteur Kourouma Ahmed mu di Modibo Keïta ba ci Gamal Abdel Nasser ba ci olympique dañoo waxtaan ba déggoo pour créer état fédéral révolutionner des états d'Afrique comme ni ko Amérique def mais ci beneen forme culturel africain la ñuy utiliser nun loolu duma ko nangu dëggal kër dëggal ko doo fanaan ci dëkk bi fanaanu fa dañ ko rawale yóbbu ko Angleterre dañ ko doon rey ndax seer yaa ngi ko doon wër bu ko neexoon Senghor bi muy ñëw nee na tubaab bi man dégguma wolof dégguma séeréer bu ma dem lu may def mu ne ko bu ma demee danaa la boole ak sëriñ si danaa la boole ak Lamine Guèye danaa la boole dignitaire li bu ya fa nekk daañu la gàttandu teera la jël réew jox la Senghor ana nu mën a ñëwee Sénégal Mamadou Dia dalal euh, euh, Lamine Guèye dalal ko moo teg Lamine gañe ko yenoon na maanaam du ngeen ba li ngeen di wax sëriñ si yëpp sëriñ si ah kenn ku ci nekk la la dëggal wax ca nga ne ba dëggal wax ñi mu siggi xool ko de Gaulle dafa yable république bi ngeen wax Sénégal 1958 la amul république bërki démb la république Sénégal bërki démb la ah tey Ousmane Sonko taxaw bëgg ñoo dellu su ci dellu yeewi buum yi ah ñu taxaw surtout ay xale ngeen lank ñàkk jom ne pat mus leen am indépendance de billaahi wallahi amu leen indépendance sëriñ si ñoo taxaw ne ne bëgguñu indépendance moo tax bi bi dogal ñëwee Senghor nekku fa moom ma Mamadou Dia newu fa Lamine Gueye newu fa Mamadou Dia ne fa mel na mboot joojaa fa nekkoon parce que dogal dafa ne yéen maa leen fi teg ay nègre ngeen ay maa leen fi teg du leen laaj dara mais Serigne sama waxaloon mille neuf cent mille huit cent quatre vingt laay waxal tey seeni maama sarxe réew mi tey seeni maam war ci suñ kow ah suñ lislaam yëpp yàq nañ ko kenn mënta jaamu yàlla ñëpp xiif ñëpp koom bi nii am xoola combine yi am 1914 rek 1914 combine yi am xam nañ ko ci la tubaab bi ne képp ko xam ne jotoo woon naa ak na nga bind une demande d'excuse te ñu bëree ko bind une demande d'excuse yor naa ci ay lettres nag man koo génne ay demande d'excuse ñëpp ko bind ñu bëree ko bind boog tubaab mee ko le 14 bii damay xeex damaa bëggeen jàppale ma te wut li ngeen ma jox kilifa yi diine yu bëri nekkoon Sénégal ay deux mille et quelques soldats joxe nga ko ñi joxe seen doom ñi joxe seeni taalibe tubaab bi yóbbu leen xeexloo leen rey leen ban dee quatorze dix-huit te déggoo ku ci ñaan kenn ñemewul a màggal wala nga gàmmo ne kat ñaanal ñeen yóbbuwoon quatorze dix-huit mos leen koo dégg kenn mu sa tànt tànt sa la wax de wala nga wàcce kaamil ne taalib yi ñu yabaloon quatorze dix-huit ñi dee ñoom ñëpp nañ leen ñaanal doo ko dégg parce que dañoo commune ak tubaab bi ñu xutu fàttaliku mais sosuma de te nag bu ngeen di jaay ak sëriñ ci sëriñ laa man sëriñ waaw man Dramé laa sant waaw ñun ñoo jëkk a tabaxi daara dans le daara dama ne kilifa diine yu màgg yi ngeen di wax du ma kenn waaye suñ kër maam fa lañ mokkale alxuraan door a génn maam kala drame jàngal na ci ñu bari damane ne ñun dama ne fii ba ngaabu waaw Dramé waaw fii ba ba ngay dem Guinée ñu ñoo jëkkat am ñeenti dëkk ñeenti dëkk tudde leen Touba te Sénégal amul am na ñeenti dëkk tu Touba amul Touba kute gi ci senegal la am na Touba gu ne ca Boké en Guinée am na Touba goo xam ne noo ko moom noo ko moom ma nga Abidjan ak Touba gi te Guinée Bissau nga xam ne far na léegi kon ñun ba ñuy doon sëriñ ah ba ñuy doon si seeni maam day taxaw di saw kon duñ nangu lii nag man maa ko xam yoonu Ousmane Sonko déwu ci damaa dëkk ci réew mi gedd réew mi mille cent soixante laa fi jógee mille neuf am lu ma naqari dem ba ma del si di ko yées laa fi fekk dama ne mille neuf cent soixante laa fi jógee del siwaat ñibbisi deux fekk fi lu ko yées maa mbay mi nga xam ne matul aw ko sarax kii day de kii man maa wax lii man dama koo gis kenn ku ne la la yàlla woon waaye kii moom dañ ko saraxe kii nay bokkam jóg ci moom kuy torox ku ba gis kuy torox kuy torox laa wax war a xoolam mbay ñag yi moom mën a fay sàll kay Macky Sall groupe yi nga xam ne tekkuñ ñaari dërëm ñaari mbali tekkuñ jaxase nii réew mi yàq te lépp amul benn sénégalais boo xam ne tu es certain de son lendemain y a aucun sénégalais qui est certain de son lendemain l'islam yàq ko yàqeet avec une laïcité qui est la locomotive de Satan une laïcité boo xam ne moo jaxase réew mi kenn mënut a jaamu yàlla ay mbay ñang mii ay franc-maçon ñoo xam ne tekku ñaari dërëm ñi nga xam ne ay fétiche lañ gëm ay fétiche ba son Ousmane jullit àqan ku man alxuraan ku gëm charia koo xam ne tey bu jëlee réew mi jëlee réew mi considération bu islaam day am ndax day sukkandiku ci loi démocratie et cette démocratie bi ne la la majorité fait la différence et que nous musulmans nous sommes quatre-vingt-quinze pour cent de la population Ousmane Sonko dana jox suñu àq ngeen bëgg a déglu rek naa féq yi nga xam du nit dara waaw suñ àll réew mépp gàmmoon nañ ko màggali nañ ko ségaare nañ ko sékare nañ ko ba tey nit ñi amuñ lu ñu lekk mosuñoo faju Sénégal bu nit feebaree bu nit feebaree kër sër lay dem waaye doo dem ci yenn jàkka doo dem ci yenn juma ñëpp xaalis la ñuy wut ngi laajal jàkka jeeg ñi ngi laajal jumaa jeeg kenn ku ne yalwaan te tey kees boo demee Cees tey suba teel six heures du matin kër sër day fees del may gërëm labbe yi labbe yi ñu gën fuuf billaahi labbe yi ñu gën ñun ñu ñooy dem sawara la bay dem àjjana parce que duñ ci dara noonu duñ ci dara Macky Sall mi taxaw ko geenam di day ci sunu kaw ak saw yéen ngeen ne patt ndax ragal ko ngir koom yu leen jox am poñet am poñet waaye di set avril bii yéen Sénégal ci laa leen di jàpp ci laa leen di ba vous la jeunesse dama ne ñu ñàkk jom ngeen sax laa leen di wax Ousmane Sonko buñ ko woo mu dem ngeen bàyyi ko mu dem ñu di ko tëjee ko tijjee ko fonto ngeen ne yàcc te taaru leen Sénégal ma génn ci yéen man naa fee bañ a tey ñëw man waaw du ngeen nit si dara ñu ñàkk jom ngeen seen université xool université jëmmal leen a jàng amul leen xam-xam l'université de Dakar l'université de Dakar les trois mille les trois mille universités yi dàq Sénégal bokku ci les trois mille meilleures universités Sénégal bokku ci noo ñàkk jom waaye le 17 bi dañ ko préparé le 17 bi dañ ko préparé dana leen tegal nag Pape Diop laaj naa ko affaire indépendance yi mu li mu ma wax da ngeen ko déggandoo la na ko Ablaye Wade indépendance yi waxuma dara ma laaj ko Macky Sall Macky mënumaa tontu je défie tous les intellectuels ku mas a gis la décoration de l'indépendance du Sénégal nga ñëw wax ko. dama ne je tout un Sénégalais. y a aucun Sénégalais parmi nous ku mas a teg bëtam ci document bi ñu signé ko la décoration de l'indépendance du Sénégal. kan kan kan ak France moo ko signé du dëgg. sëriñ si ñoo taxaw maye Sénégal keroog bi dogal di dem di wàcc tribune sëriñ si dañ koo dab ki di xëccoo maa koy ñaanal ku ne xëccu naan maa koy ñaanal kan ku ne xëccu muy mba Jacques Diop moo taxaw di di manifester ànd ak quelque quelques manifestants dogal ni leen si vous voulez l'indépendance prenez-la mais aw këyit bàyyiwu ko fa dogal en Guinée dafa daw bàyyi fa mbaxana ma ndax Sékou Touré dafa rëkk taabal ji ne ko nous préférons mourir xiif xiif mourir dee ci xiif ka yow dëggal nga din coloniser Cheikhou dafa yuuxu ba rek taaba ji dugg dafa tiit daw bàyyi fa mbaxana ma mbaxana ma ci musée gi la ñu téye ñoo ñoo am indépendance noo ñàkk bopp feder ba dañ ko jox ndigal mu taal Sénégal gépp trois mille six cent villages la taal lim fere ci ay doomi aadama kenn xamul lu mu todd tey ngeen du ko pont Faidherbe ak ah, stade Faidherbe ñoo ñàkk jom yàlla nañu dee nun ñëpp dem sawara dama ne noo bon nun ñëpp yàlla nañ dee yàlla lakk nu parce que tekkiwuñ dara Ousmane Sonko daal bu ngeen ko xoolee ñu def ko ci kaso bi ah wala ñu du bokk ci élection yii senegal dañ ko far ci map bi bu mu amati dama ne map bi nañ ci dindi senegal te nun ñu yàlla alak nu parce que baaxu baaxunu am or am diamant am boxit am phosphate am ruba am aluminium am turbe am océan Atlantique te amuloo añee nga xam ne suñ réew mi kat en 1960 ñoo ëpp doole Qatar en 1960 ñoo ëpp doole Singapour en 1960 dañoo stable loon toog en 1960 China ñoo ko man ndax oto si lépp amoon nañ ko tey mi ngi nii Auchan Auchan moo ñu jox luñ lekk ñoo ñàkk jom dama ne billaahi wallaahi buñ farluwul ci noonu buñ farluwul maa tey maa maa tey ñun ñëpp daañu dee dem sawara parce que man am naa wàll ci réew mi waaw fi laa juddoo defe fi li ma fi war a def billaahi wallaahi musuma lekk cent franc yu jóge trésor public xanaa man damay doomeeraam Macky Sall loo ma ah bi nekkee fi maa yow xam nga ma maa la man bu ma la booleeg Marème Faye Sall ak say doom billaahi maa leen man Idriss Seck bi ngay nekk ci dëkk bi billaahi maa la man ah, ngeen jël réew mi bëgg ko lekk yéen dong bàyyi sama njaboot bàyyi sama askan ba damaa daw sama njaboot yëpp laa buub dem ci àll bi sama njaboot yëpp laa buub ñëw dem Amérique américains yi jàpp ma fonk ma di ma toppatoo yaa 42 ans américains yi di ma lijjanti di ma toppatoo amu benn problème te dëkk Sénégal war faa mën tedd am xam-xam boo xam ne américain lañ may téeg seen fukki loxo juróom te Sénégal kër ga nga dëkk sax ñu la waxu dëgg bon ku gis ko bon wala kuy ku yàqu alko demal Sénégal ci mbug mbugal lañ nekk dama ne mbugal mi ñu nekk ci la ñu ne ah. dama la xewoon ci jamono yontu la yàlla lóor ji lu ko yées la Sénégal di dund Sénégal nga gis muy taw taw bay taa te ndaa ndaayi ndox du ci ne demal ci dëkk sëriñ si day taw bay taa duñ am ndox mu naan waaw ñaata peru salaatu faati moo daanu Sénégal ñaata per ba Mamadou demee ak léegi est-ce que am ngeen lu ngeen añee kan wax nga dëgg ñaata peri salaatu faati moo wodd te tey amul lu ngeen lekk kan dem ci beneen tarixa bi murit sikarulaa ak njàngum xasida ak leneen lin jàng lépp ñu toll gis ngeen ko te amuñu luñ añee ñi ñu yabaloon ci guerre ñu ci guerre bi ñu dee ñu dee ñemewuñ leen a ñaanal ndax tubaab bi laïcité bi kenn du ko tudd ndax tubaab bi ah kenn mënta jaamu yàlla ci réew mi ndax tubaab bi te ni quatre-vingt-quinze pour cent dem charia charia noo mën a gëmee alxuraan te gëmoo charia yow noo mën a téye xasida di ko jàng te gëmoo charia ndax boo gëmul charia di ko doxal réew mi ñoo ko moom quatre-vingt-quinze pour cent de représentation tey bu ñu deful charia ci réew ma noo ko def waaye démb waroon a delsi bilaay maa ngi rëccu Mouhamad Lamine Dramé maa ngi rëccu ñoom la doon góone Latir maa ngi rëccu ñoom jéeri joor la maa ngi rëccu dëgg dëgg dëgg dëgg ceddo yi nga xam ne ñoo taxawoon te xeex ku ci mel ne Xaali Amar Fall maa ngi ñaanal tey rëccu uh, Thierno Alassane Ball ñooñu ñoo doon gor yi am dañoo taxawoon am lu ñuy bañ Mbaba Jaxu Ba waaye baadole maam mbay sagari nit ñu bon ñi nga xam ne ay seytaane ñi nga xam ne ñoom wane jàkk seen biir seen si xam ne ñi naari fan jëm kenn xamul fu mu doon bëgg a yàpp Ousmane Sonko waaye Sénégal bu ngeen xoolee ban rey Ousmane wala ngeen xoolee ban ban tëj Ousmane Sonko réew moom man dama koy off parce que amul leen njariñ waaw maa ngi jégalu bu baax am doo mu képp xam amu naqar ci li ma la waxee sa dënn laa waxee xel ak xam-xam dofuma ci yoonu sawar lañ jëm ñëpp mu di tijaan murit xaadir laayeen bàyyi fa ak ku mën a doon kone yoon wi ñu jël dama yoon wi jël duñ jëme fenn fenn dañ jëme war yi bari na nafiq yi bari dama ne kër kër gi nga dugg kër gi nga dëkk kër gi nga dëkk ba ci man mii ba ci man mii dama ne kër gi nga dëkk ñi nga bokk la la gën a bañ Sénégal ngi dundal nit mu bañ la senegal ngi dundal nit du la yéene jàmm Sénégal ngay dema ne ngay toppatoo doomu aadama dul teg nit Sénégal ngay séq nit mu defe ne moo lay jëkk a dee war laa doon réew mu bona ngi noonu réew mu bona bona bona ngi noonu te alxuraan yi nga du dëgg du dëgg ci nun lépp ay fenn la ak tappalekat tey bu ngeen toogee di xool ba ban jàpp Ousmane Sonko lor ko comme ni def Mamadou comme ni def Mamadou Dia xam ni yéen a sàggante daañu ko def de daa ndax Mamadou Dia kana koo war Serigne see ko war xam ngeen ko te tey kenn yi mu koo wax te kenn du ko réccu ana ko fi jëlee Mamadou Dia la mi intime de Alaaji Abdou Aziz ah, ko doon forcé di naxanteeg moom ba mu nar doxal charia ba mu nar doxal diine ci réew mi ay sëriñ dem ànd ak dëggal di photo mu di leen décorer ah ba ana Mamadou Dia ah, yàqu na Cheikh anamu Cheikh Anta Diop anamu ñi gën ci seen sant yu gën a màgg ci la bokk cala bokk te doo doon fa kilifa mais ay bokkam ma ko war ay bokk ma ko war waaw fii ne bu neexoon waa Daaru Salaam Cheikh Anta dana falu mais ay koppar ay juróomi dërëm ay koppar tax ñu sacrifier Cheikh Anta bam faatu ñu bu ko ceytu ma xam li bokk ak ma xam li mu bokk ak ñoom lu mettee ngi noonu sa mbokk dikk andi xam-xamu kenn amu ko nga won ko ginnaaw wor ko ànd akum tubaab a bi ah jël Mamadou ja ñu ne ko deqal ren di daanaka yàq addunaam ah ngeen topp ci sëriñ si yàpp yàppeeka fulañ fulañ ñooy ñàkk bopp te daa leen xamal leen bu ngeen xoolee ban téye Ousmane Sonko wala ngeen xoolee ban rey ko ban rey ko booy bu nu Sénégal ñu far ko ci map bi booy mun Sénégal ñu far ko ci map bi mu bañ a tee am waaw yéen ñëpp xam ngeen ne Mamadou Dia lu ko rey xam ngeen ko Serigne Seck ko wor trahir ko seen mbokkum jullit laaj réewum bëgg ko soppi def ko réewum jullit ngeen lànk fab laïcité bi dugal ko pour lu ngeen ko jënde si ay njariñal famille nit ñi defuñu ah. xam na ni histoire bi demee te bu ndewee ba ca kanam am na vidéo am dañ koo denc mais dana génn na ah. vidéo yi dana vidéo sonore dana génn da ngeen dar seen bopp yuuxu Macky Sall dugal leen ci galaawaar yi goo xam ne seen i njoowaan dana dagg dana dagg waaw Ousmane Sonko nag yoonam nekkul ci li may wax na garde ay cëram na garde boppam ok il a un projet que j'admire il a un projet boo xam ne yaakaar naa ko mais jëmmam taxul may wax te wax lu ma de yoonam nekku ci je prends l'engagement et la responsabilité de dire ce que je pense je vis dans une je suis musulman waaw bu dugg ci dund ci démocratie l'islam bàyyi kenn moomu ko l'islam du marchandise tey am na ñoo xam ne Sénégal bu fa l'islam jógoon ñu torox parce que ci la ñuy añ ci la ñuy reer am na xam ne Sénégal bu ne l'islam amatul ñu torox parce que amuñu métier amuñu xam-xam dul de nga am dunde dunde l'islam ci dund waaw loolu la ñuy def waaw bu ngeen ñii ne pat bu leen leen déglu xale yi jóg leen toute la jeunesse sénégalaise jóg leen ngeen taxaw la di set mbir mi na fi yem parce que Macky sonal nañu waaw bu ngeen jógandoo bakkan du bu ngeen jógandoo bakkan du nervi bu nervi bu leen ci tooñ bu leen ci tooñ bu leen ko jéggal waaw bu leen ko jéggal may dellu wax nervi yi ak la gendarmerie ak l'armée nationale nañ jóg te defe naa ne armée sénégalaise waruñoo gëmm ñuy rey askan wi armée bi ak ku ci mën a nekku ne wóor na leen ni Macky Sall nekk du dëgg du yoon armée bi war na ñoo xam ne opinion internationale war na ñoo xam ne aussi fi fii Macky Sall la odu foofu waaw nañ dellu si dëgg nañ ànd seen sago ñëw jàpp ci réew mi ñu bokk ko defar Macky maa ngi moom ñu nekkoonul fii Amérique billaahi wallaahi laa la wax liñ fi nekk lépp maa ko man man jabaram boo leen boole ki doomam maa leen man bërki lim bi mu jotee ci réew mi gis ngeen ko Idriss sekk ma xam li ko indi presse town xam fa mu nekk lu ko muy fenkat di njaaba njalle boo xam ne ma xam ko jël sama moom réew nar koo yàq Idriss sekk bu lekkee juróomi dërëm ci réew ma ak njabootam billaahi man Ousmane Dara war naa fa man lekk fukki dërëm bàyyam gënul son bàyyi ay bokkam gënuñu son sama maam Mamadou Lamine Dramé bakkanam la joxe bopp ba ñànkoo dañ koo dagg yóbbu Bordeaux ana boppi maamu Idriss Seck bu ki Sall ah mais man Ousmane Dramé dama wut dagg sama mburu soos soos soos lekk ba maa mbay ñaam yi nga xam ne doom yi carte yi nga xam ne Maroc lañ ko wéy seen ndey ñu judd ñu indi ko ci dëkk bi ah, ah Marème sal Sall la famille Faye Sall mais ñooy kan ba war a puub ci sama kaw man man war naa bàyyi réew ma ba nekk mag musuma soos sama mburu ah damay jël sama njaboot daw ni wëqit daw pour lan ah parce que bëgguma lekk riba bëgguma sàcc bëgguma fen bëgguma tappale bëgguma dugg ci corruption jar ma digga ma gàddaay dem tey ngi ni ma mbalee ak a reetaan ak saboote ak ñàkkal xorom waaye képp koo xam si lekk juróomi dërëm yoo xam ne réew mi ko moom man Ousmane Dramé sama wàll yàlla nañ buur yàlla àtte yàlla bu mu rees dama ak ku muy wàlliyu muy sëriñ muy politicien muy xut bu samaan ak ku mën a doon ko ne lekk ci sama man sama wàll jéggaluma la ko àdduna ak àllaaxira waaw yàlla nañ buur yàlla àtte Ousmane Sonko nañ ko bàyyi tout tranquillement te lii may wax yoonam nekku ci Ousmane naa aucun mot à dire dire man bokkuma Pastef de bokkuma fa damay nit nag ko am choix gis lu baax ma def ci sama loxo loolu rek la mais mënuma ànd ak Macky Sall muy toroxal sama askan. waaw li fi nekk daal mi ngi noonu nan ko bokk jàppee noonu bokk gisee noonu xol bi tàng na nag xam naa ni dënn laa waxee waaye am xel laa ca boole wàcc leen clients yi ah doon ay nit respecter tous les Sénégalais. man bu ma kenn tifli ah ay tiflit bu ma kenn tifli comme xam-xam ñëwal xam-xam lañ soxla waaye tiflit kenn soxlawu ko fi yàlla nañ yàlla suturaal te indi jàmm ci réew mi jàmm dong lañu bëgg na fi jàmm am te Ousmane Sonko mi ñu bàyyi ko tout tranquillement man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences yàlla nañ yàlla suturaal te indi jàmm ci réew mi